Aïcha <laughs> tey téléspectateur ñu ngi si la toile ah, ah ñu bàyyi la nga feggoog Abdoulaye Ly. comme ni ñu am importance la ñuy waxtaane xam naa dina soxal ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk internet yi comme la toile moom foofu rek lay lay viser ba tax na dañuy wa waxtaane wàllu cyber criminalité mm-hmm. waaye li ëmb ak hacking ak li nga xam ne nii moom moo di euh, écoute yeeg euh, capture d'écran yi moom la ñuy waxtaane ki ñu fi mm-hmm. dalal nag xam-xamam màcc na macha allah jëm mm-hmm. ci wàll wi ba tax na dañuy dañ koy bàyyi rek mu yaatal buñ dee wax cybercriminalité lan moo ko ëmb euh, Abdoulaye Mm-hmm. cyber dañ koy relation avec internet moo tax ngay dégg cyber café fi ñuy dajee di fa surfer mm-hmm. donc cyber espionnage espionnage bi nga xamante ni dañ koy jaarale ci moyen de télécommunication téléphonie mm-hmm. léegi bu ñu jëlee cyber ak criminel ça benn criminel bi nga xamante ni day def ay jëfu ñaawteef mais jaarale ko ci li nga xamante ni moom mooy internet mooy ñi nga xamante ni dañuy nëbbatu ci ginnaaw clavier yi pour di espionner ay nit mm. pour di dem di hacker ay banque pour di pirater ay doomu aadama pour di def ay sur écoute ay nit yi nga xamante à leurs insu loolu moo tax ñuy wax cybercriminalité mais criminalité foo ko dégg rek ça veut dire que loi daf koy interdire mm-hmm. donc képp ku ñu jàpp ngay def ay acte de cybercriminalité yoon dafay tegu ci sa kaw te cybercriminalité dafa dem ba nekk activité bi dem ba gën a activité bi nga xamante ni moom mooy trafic de drogue mhm. c'est-à-dire cybercriminalité lu muy duggal ci xaalis bu moo gën a bëri trafic de drogue imagine nga trafic de drogue li nga xamante ne moo la doon généré ci àdduna bi ba ay ñu mel ni Pablo Escobar demoon ba nekk cinquième homme le plus riche au monde mhm. donc bu ñu demee ba gis activité bi nga xamante ni c'est illicite ñi koy jaarale ci téléphone portable yi ak internet yi autres bu demee ba dépassé activité boobu ça veut dire que c'est inquiétant et ça génère énormément de million de de milliards de dollars loolu mooy cybercriminalité te de nos jours nag dafa commencé di lëmba jamono di lëmbe askan wi. Mhm. dem ba ay nit créé li nga xamante ni mooy ay société ay industrie carrément yi nga xamante ni dañuy yëngu ci cybercriminalité c'est-à-dire ñoom dañuy jël ñëw jël en otage li nga xamante ni moom mooy si fichier wala jël la en otage yow ne la tant que fayoo duñ la jox li nga xamante ni moom mooy sa ay données récemment gis nañ ko fi ak scandale boobu nga xamante ni moom mooy Pegasus. donc télé yeeg rajo yeeg journaliste yëpp doon ko wax. donc muy benn société bu nekk Israël NSO ñoom NSO groupe ñoom ñoo ko développé woon. jublu ci di ko jaay ñi nga xamante ni ñoom ñooy état yi ak agence gouvernementale yi. Mm. c'est-à-dire man personne lambda bi aw ma maqaama dem foofu noonu ñu jaay ma ko. logiciel boobu seen un mm. logiciel malicieux c'est un virus bi nga xamante ni. bu ñu soxlaa espionné yow mi di coro. Mm-hmm. parce que virus espion classique yi il faut ñu envoyer benn fichier nga cliquer ci. te doo ko xam mu exécuté wu en arrière plan mais boobu force bi mu am mooy nga yëg ko nga ñàkk ko yëg nga bugg ko nga ñàkk koo bëgg dañ koy envoyé ci sa téléphone portable mm-hmm. te day récupérer bépp information bi nga xamante ni mu ngi ci sa téléphone portable que ça soit sa WhatsApp parce que WhatsApp c'est de bout en bout normalement bu ñu récupérer information yi ñu ko mën a traité parce que mm-hmm. dafa benn clé de chiffrement bi nga xamante ni ki koy envoyé ak ki ñu koy envoyé rek moo ko am moo tax ñoom dañ koy mën a lire mais logiciel boobu day dindi loolu muy signal ay say say photo say vidéo même say données de géolocalisation daf koy récupérer ñoom li ñu ci jublu woon mooy jaay ko président yi pour ñuy épier ñi nga xamante ni ñoom ñooy opposants yi di espionner ñi nga xamante ni ñoom ñooy journalistes yi parce que yenn journalistes yi ils sont dans le monde parce que c'est des journalistes d'investigation gisoon nañ fi ki nga kham, xamante moom mooy Jamal gi ñu rey ko Arabie Saoudite parce que dafa commencé woon def ay enquêtes ci famille royale tu logiciel boobu nit ñu influent ñu mel noonu lay dem di sàcc li nga xamante ni moom mooy seen ay information donc ça veut dire que cybercriminalité dem na ba toll fi nga xamante nekk na une affaire d'État donc ça devient inquiétant même au plus bas niveau de l'échelle mooy ñun ñii Sénégal dañ koy def sans pour autant ñu xam ko lu seriwul dara euh, euh, fan yi gis nañu Auchan ñuy envoyé ay ay message gis nañ sax Auchan ci boppam génn ci seen page Facebook ah. ngir wax ni ñoom euh, tukkeewu du lu tukkee ci ñoom man mii jot naa jotoon naa message lien la lien bu ñu ma envoyé envoyé nañ ma ko trois fois troisième fois bi nag man laa ko soog a ibbi dugg ci biir. kon man mën naa jàpp ne eh, lien boobu ñu envoyé te Auchan nee na moom euh, euh, euh, toppeewu ko kenn du moom ci moom la jóge lien boobu kon man mën naa jàpp ne mën nañuy espionner sama sama téléphone. wala ñu may topp ci beneen côté. exactement defoon naa ci vidéo sax ci lendemain bi. vidéo bi aussi gis naa ko après après si laa ko partagé. waaw pour expliquer. en mhm. réalité lien nan la ñuy xàmmee lien bi nga xamante ni lien normal ak lien bi nga xamante ni peut-être dañ ciy nëbb. benn logiciel malicieux et cetera parce que mm-hmm. boo xoolee lien bi ñu envoyé ne Auchan boo duggee ci biir da ngay gagné quarante mille francs lien bi ça n'a absolument rien à voir avec Auchan. Mm-hmm. déjà lien bi. moo tax ñoo di woon nañ sax. exactement point mm-hmm. CN la point CN te Auchan France moo ko moom. bu dee Auchan Sénégal normalement point SN la war a nekk. wala point FR benn. ok ñaar. à chaque fois bu ñu la envoyé lien li ci jiitu http boobu da xool ndax S toftalu na ci parce que S ça veut que c' est un lien sécurisé. sécurisé mais si c' est http. tout mhm. court am ñaari slash ça veut dire que c' est pas un lien sécurisé. kon loolu liñ ci mën a dégg monsieur li mooy ñu moytandiku lien yi nga xamante ne parfois dañu ko yónnee que sur WhatsApp wala euh, Messenger. parce que ñoom mën nañ ko utiliser. Mhm. pour euh, euh, dugg ci li nga xamante ne moo di say données personnelles. que bu ngeen xoolee Auchan boobu noonu mun na nekk. mun na bañ a nekk espionnage mais mun na nekk vol de données personnelles te vol de données personnelles la sax parce que ñi ko cliquer dañuy lañ laaj li nga xamante ni moom mooy seen ay information sa nom mhm. prénom sa numéro téléphone etc alors que ces données là de nos jours coûtent excessivement cher tey boo gisee ñi nga xamante ñooy candidat aux élections présidentielles souvent dañuy dem ci centre d'appel yi di jënd li nga xamante ni mooy base de données numéro téléphone nit ñi mhm. pourquoi parce que numéro de téléphone yooyu noonu ci la ñuy ay message pour def ay campagne yow mhm. ñaata yoon nga jot message ci mhm. koo xam ne mosoo ko jox sa numéro benn institution et cetera ci genre lien yooyu la ñuy profité pour sàcc sa information yooyu tey xam nga lien boobu noonu bu ñu ne la da ngay gagné cent mille francs dugal sa nom prénom ak sa numéro ce numéro carte d'identité de nos jours ça représente très très très grand chose uh-huh. mën nañ ci def ay retrait uh-huh. yu ci yenn euh, uh-huh. transfert d'argent yi parce que amul contrôle mun nañ ci créer li nga xamante ni moom mooy ay doublon de carte d'identité voté loola te voté woo loolu c'est des informations qui coûtent excessivement cher moo tout le temps dama naan il faut éviter de cliquer sur de cliquer sur n'importe quel lien parce que lien boo cliquer ci ginnaaw mhm. am na lu tax nit ki envoyé la ko mhm. souvent mhm. sax dañu doon envoyé ay spam ci suñu ay adresse email c'est-à-dire pour forcer ñu li nga xamante ne moom mooy publicité ñun suñu dëkk yi nag comme ni ma ko fi waxee woon bële passé comme nous sommes un public non averti sur l'utilisation des des réseaux sociaux du ñu comprendre loolu te dañuy fal ay nit yi nga xamante ni par exemple CDP commission de protection des données ñoom ñoo war a sensibiliser nit ñi xamal leen loolu parce que boo demee France ak États-Unis dafa am RGPD réglementation générale de protection des données mhm. ñooñu dañuy imposer ñi nga xamante ni ñoom ñooy créer application yi ñiy wax li ne ci ginnaaw application yi comme WhatsApp temps yee passé mise à jour indi woon na fi coow parce que dañoo waxoon nit ñi nañuy respecter politique de confidentialité bi nañ ko accepter sinon ñu supprimer leen. bu ngeen mhm. fàttali ko. Mhm. ba nit ñi commencé doon ay signal ak. ay loolu amu fi. fii da ngay télécharger rek di def lu la neex bu ñu la envoyé lien coro transféré ko Abdoulaye mhm. Abdoulaye transféré ko xuddu ah, ah, ñu cliquer ci biir donc facilement dañuy jël li nga xamante ni moom mooy suñu information voilà mhm. Mhm. bu ñu waxee tam ci hacking mu mel ni moom mooy wàllu piratage ak yeneen yu ni mel kon ñoom ñëpp ñoo bokk famille waaw ñu soog dugg ci li nga xam ne ni tey jii moom mooy waxtaan ndax gis nañ Sénégal actuellement bari na loo xam ne nii réseaux sociaux yi mu ngi koy jural nit yi. Mhm. Euh, la fois passée rek. Mhm. Euh, lu mat ay deux jours gis nañ fi benn coow lu doxoon ci benn groupe. groupe mhm. de femmes la boo xam ne nii ka ko créé. ñu ngi wax sax euh, turu yaayam bi ñu ko joxee. nee nañu ku ku ku siiw la fii ci fii ci Sénégal ci télé yi. ba tax na kooku dafa créé ab groupe boo xam ne nii moom la ñuy moom moom groupe bi daal day topp ay kaa la ñu wax. dafay génne à chaque fois cas nit ñi te ay célébrité tamit lañ doon génne seen cas mais am na ci ñoo xam ne ni sax. kenn xamu leen euh, dafa tax ñu xam leen ba kooku tey jii nit ñi ñu ngi wax naan ay 22 plainte mi ngi koy xaar biir euh, ca procureur ak feneen ak feneen ndax ay ay ay données jàmbur ay ay euh, nuñ koy waxeeti ay mbiri jàmbur yoo xam ne ni warul génn loolu la doon génne te day tudd tur day ñëw même su fekkee ne dañuy joxe ay initial tur yooyu mm-hmm. day génne tur ne diw ak diw moo def lii ak lii mu nekk nag ay mbir yoo xam ne day safaanu mm-hmm. bari na ci ay célébrité yoo xam ne fii ci Sénégal groupe boobu yàq na leen mm-hmm. eh, tey jii ñëpp ngi leen di ñëpp a ngi leen di daw wala sax ku ku ñu jublu ñu daan ne ñoom kat yëg lii parce que groupe boobu dafa bari ñu koy ñu koy suivre mais suñ jógee ci groupe boobu tam gis nañ yeneen yoo xam ne ni tam euh, internet mu ngi koy jur eh, ci kaw ay ay ay nga làqatu ci sa ginnaaw whatsapp wala sax nga créer si beneen numéro whatsapp pour yàq ci nit mhm. ak yeneen yu ni mel ba tax na jamono ji ñu ñu wax tam euh, nekk na loo xam ne ñu ngi koy partagé ci ci ci ci euh, Facebook Instagram ak yeneen ci ay jumtuwaay yoo xam ne ni mën nañ ko utiliser comme ñu ñu koy woowee toile bi mhm. ba tax na nekk na loo xam ne ni dafa soxal soxal ñi nga xam ne ñoom ñooy nit ñi euh, surtout internautes yi mhm. Abdoulaye exactement groupe yooyu mooy les groupes topp ka ay k xeetu groupe yi nga xamante ni ñoom exposé fa ay vie wu doomu vie wu privé doomu aadama rek lañ fa nekkee mhm. donc c'est des groupes fermés entre guillemets ñi nga xamante ñenn ñi ñoo fay daje di fa waxtaanee ay vie privée nit mhm. te ay compte fictif la ñuy yor parce que doo doo leen mën a mën a xam mais euh, il a fallu que ñoom ñu laa di laal koo xam ne laaloon nañ ko bu yàgg mhm. mais kooku dañu laal ku cher ci moom kooku dem fay pour ñu toppal ko mi ay détective pour ñu toppal ko mbir mi mhm. alors que ñoom xëy na dañ dul métti kii ko def admin bi da dul maîtriser wu li nga xam ne moom mooy internet je crois bien parce que nee na numéro la ibbee compte Facebook bi parce que trois comptes la mhm. mais benn bi ci lañ ko jàppee ndax da doon jël après ci compte fictif boobu di ci envoyé ay nit pour di def ay achat ci Facebook comme su gisee lu rafet mu jënd ak yooyu mhm. xam a kon kooku bëgg na nekk bandi mais euh, cerveau bi nekk <laughs> soxlawul mbir da nga ciy def ndànk mhm. parce que gis nga informatique lan moo tax ñuy utiliser le mot adresse mhm. adresse email mhm. adresse de messagerie site bi adresse bi lan la parce que adresse tey boo ma joxee sa adresse dinaa mën a ñëw ba seen kër seulement bu ma joxee adresse am dinaa ko mën a fekk ba seen kër foo nekk boo ma joxee adresse falaa lay fekk noonu la adresse mel ci internet gis nga ci internet nit ku mu munti doon boo créer compte boo créer mille loo munti créer am nga jox nañ la li nga xamante ni moom mooy adresse IP nga xam ko nga ñàkk koo xam adresse IP boobu noonu mun nañ ci jaar retracé la ba fekk la fi nga xamante ni moom nga toog mm-hmm. mun nañ ci jaar retracé la ba xam ban ordinateur nga utiliser moo tax souvent mm-hmm. nit ñi di utiliser ay VPN pour réeral nit ñi mm-hmm. ñi nga xamante ni souvent dañuy créer ay fake compte xamuñu ne quel que soit alpha boo créer fake compte am na adresse IP bu nekk ci ginnaaw adresse IP boobu buñ ci duggee gëstu ci mun na am bàyyi nga ci sa benn information bi nga xamante ni mun na laa suux mun nga ci bàyyi sa hmm. numéro téléphone mun nga ci bàyyi sa sa surnom mun nga ci bàyyi ay affaires yi nga xamante ni mun nañ la ci topp les hmm. vrais bandits avant xam na lañ doon def bu ñu doon commettre genre acte de cybercriminalité bu ngeen rappelé woo hmm. ñi nga xamante ni ay étranger lañ dañuy ñëw ci benn cyber loué benn ordinateur fa lañ doon defee seen ay ñaawteef pour bu ñuy retracer li nga xamante ni moom mooy seen ñaawteef yi cyber bi lañu leen di fekk duñu leen fekk ci biir kër yi jamono yooyu VPN amagul woon hmm. mais ba VPN commencé am ci lañ amee fit di toog seen biir kër yi di ko fa defee di contourner li nga xamante ni moom mooy adresse tu vois donc moo tax femme boobu jàppoon ko yomb dikkal tuuti ci ci VPN pour ñu gën a xam waaw VPN mooy virtual private network c'est-à-dire hmm. tunnel de connexion privée la hmm. tunnel de connexion privée bi nga xamante ni c'est chiffré de bout en bout tey nii su ma jëndee sama VPN ma installé sama téléphone wala sama ordinateur man maay choisir ban dëkk laay nekk. Mm. dama naan man tey mm. France laay surfer automatiquement VPN bi day transformer sama IP wu machine bi def ko adresse IP wu France. ok tey par exemple bu ma téléchargé Netflix Netflix Sénégal ak Netflix France contenu yi bokkul. ok tu vois su ma bëggee seetaan contenu Netflix France. damay télécharger VPN automatiquement damay gis film yi nga xamante ñun africains yi jagleeluñu ko ci biir Netflix mm-hmm. parce que dama sàndi li nga xamante li nga xamante ni moom mooy euh, internet ok mm-hmm. donc loolu mooy VPN cest à day réeral ku lay wër day yaakaar yaa ngi France di def say toj toj fekk na yaa ngi Sénégal souvent nit woo la fii numéro beneen feeñ dëgg la mm-hmm. arnaque la dëgg la mooy ñi ñi nga xam ne seen photo nuyu dañ koy dugal ne la maa ngi beneen fekk boo sàggane yéen a kër Mm-hmm. ok système de système de routage yooyu la ñuy utiliser que ça am na version téléphone am na version ordinateur donc loolu mooy VPN tu mm-hmm. mais loolu ñi nga xamante ni souvent dañuy bañ ñu retracer leen ak ñaawteef la ñuy def ñoom ñoo koy def mais kon quant à par exemple groupe yi ñu wax léegi parce que la plupart du temps sax ay initial la ñuy joxe mhm. xëy na ñun ñi nga xam ne tàmm nañu en quelque sorte toppukaa ñooy dem ba maîtriser initial yooyu ba bu ñu waxee initial rek dinañ xam ne bu ñu waxee coro kii coro lay wax mhm. bu ñu waxee mbay laay mbay lay wax tey ji bu ñu leen porter plainte est-ce que dara mun na leen cee mën a fekk parce que quoi que l'on puisse dire aussi joxewuñu ay tur mais initial dañ joxe xëy na ñun ñoo maîtriser milieu bi ba ci biir biir biir commentaire yi. waaw commentaire yi moom da ngay gis ko am day ñëw tudd tur. day day tudd tur moom gis kuy laajte di laajte ñu ne la diw la yow xanaa na ngaa dof waaw léegi ka joxe ka joxe information bi. <laughs> joxe ay initial moom est-ce que dara mën na ko ci euh, mën a fekk ak ka joxe commentaire moom am fit bu tool ni de bind tur. dañ ko bon du ma expert en droit mais dama dama koy méngale ci jamono. par mhm. exemple ki crée trouble à l'ordre public. Mhm. dañ koy juger ne. nit mun na loru ci trouble à l'ordre public boobu mu créé c'est-à-dire yow boo ñëwee nga indi débat ne a Khoudoss Diallo AKD nangam. Mhm. wax moom moo def lii. Mhm. Salma ñëw ci biir tudd turam saaga ko wax c'est parce que yow yaa initié loolu. Mhm. dëgg la. peut-être ci loolu dañ lay àtte mais li ci ëpp ñoom dañuy jël ay capture d'écran wu jàmbur. ne ko xool raj te dañoo war a jàngal sénégalais ne lan mooy données personnel mhm. mm. dañoo xamul données personnelles moo tax ñu yaakaar ne lu la neex capturé. Mhm. Mm-hmm. ku la neex photo. ojo bu la neex transféré. Mhm. alors que même sama daggitu maxane bi boo ko photo dugal ko ci internet bi sans moo consentement jël nga sama données personnel nga dugal ko su ma la porté plainte dañ lay jàpp. waaw ok yooyu li def c'est extrêmement dangereux. mais euh, faut, par exemple sa photo bi ñu jël ci sa page Facebook pour def ko illustration. mm est-ce que données personnelles la wala am déet. données personnelles bien bien sûr. parce que Facebook pourtant yaa ngi koy def sur la place. waaw euh, publique moo tax on utilise le mot mur sama mur xam nga tey sa muru kër. Mhm. moo tax internet expression yi ñuy utiliser dafa am solo mur Facebook nga sama muru kër ma peinture ko balaa nit ñëw ne voté. Sissoko wala voté Khoudous. Hmm. damay dem porter plainte Khoudous parce que dafa ñëw sama miiru kër bi ma peinture ba mu rafet mu bind fa. Hmm. tey sa miiru Facebook nit bu ñëwee saaga la fa c'est public pourtant boo demee porter plainte dañ koy jàpp. parce que sa mur la. parce que tey il suffit que d'expression la il suffit que Coro def dara. Hmm. ñu dugg ci page Facebook bi. génne ay photom ñëw taf ko ci beneen publication après di ci nekk di di. di commentaire loolu nag mooy problème moo tax ma ne xamuñu. en fait xamuñu. Hmm. ñun ñàkk xam moo ñu jàpp. ba tey jii ni photo sama photo même tey boo ma invité woon sama photo nga bëgg koo jël def ci affiche. danga hmm. ma war a laaj sama autorisation sama permission. Hmm. comme tey boo bëggee boo créer son nga bëgg a jël voix wu Salma dugal ko ci son boobu noonu. pour mu bokk ci. boo ko ci dugalee à son insu même bu dee fii la ko waxee woon Walf nga téléchargé ko dugal ko bu la porter plainte da nga koy fay ay droits. Mhm. Mhm. c' est exact la c' exactement la même chose. c' est à dire ça c' est virtuel lële c' mhm. il faut ñu xam ne c' est des c' est des mondes qui sont pareils. sauf que fii dañoo voteegul ay lois yu bari. loolu moo tax ngeen gis. salfaañoo bi bari mais hmm. am na loi sur l'électronique bi nga xamante ñu ngi koy évoluer ndànk ndànk ndànk hmm. hmm. bu fi nit jëlatee yëfi jàmbur exposé ko ci internet bi dañ lay tëj waaw mais loolu ba la ñuy egg ci tëj nit keek yooyu amul dara loo xam ne parce que la fa passé maa ngi la ko doon amul dara loo xam ne nit ki mën na fa jaar pour euh, Facebook bañ comme tey jii nga jëloon loo xam ne ni tey jii da ngaa bëgg a jóg pour yàq coro ndax gis nañ ne temps yi mhm. Facebook mi ngi jéem a euh, xam olof bi parce que mhm. des fois da ngay gis boo bësee traduction nga euh, bind olof boo bësee traduction mhm. du génne lépp traduire lépp ba mu normal mais da nga ci gis ay mots yoo xam ne euh, da koy da koy xàmmee waaw kay da koy traduire est-ce que mënuñu jaaree foofu pour mën di yenn comme cybercriminalité bi ñu mën koy mën ko bloquer ba nga xam ne nit ki du am accès ci yenn données personnelles yu nit ki yooyu est-ce que loolu mën nañ ko xaar. Hmm. waaw parce que gën nga ñi nga xamante ni ñoom ñoo créé réseaux sociaux yi ñoom xam nañ souci doomu aadama yi sa à dire ñu ngi koy évoluer ndànk-ndànk. Mm-hmm. boo seetloo dernière mise à jour bi nga xamante moo nekk WhatsApp léegi booy envoyé photo nit am nga possibilité option ak coché option bi nga xam ne mooy un bi nekk à côté boo ko bësee nit ki su ubbee photo bi benn yoon dootu ko mën a ubbi te amul possibilité enregistrer photo bi. Mm. Mm. alors avant boo envoyé nit photo da doon des ci téléphone mun na koo def lu ko neex. Mm-hmm. mun na ko envoyé waat. mun na ko enregistré mun na def mais léegi WhatsApp intégré nañ bi nga xamante boo bëggee xool photo bi nii benn yoon rek da koy envoyé photo bi bës un. Mm. mooy ouverture unique. bu ko ubbee c'est fini photo te réew da ngay jot ci sa téléphone que ouvert cest à ubbi na ko. boo demee ci réseau social bu mel ni Snapchat. boo envoyé nit photo mu capture d'écran ko. da nga day da ngay jot notification bu la xamal ne. capture na ko mhm. capture d'écran. te que Snap nag je me dis moo ëpp sax euh, sécurité parce que que ça soit note vocale photo mhm. ak vidéo lu mënti doon bu ko waa ji capturer wala mu jël sama Snap bu ma publier envoyé waat ko Xudoos da lay wax ni que diw def na lii def na lee. exactement euh, je pense que boobu sax ngay gën a nekkee en sécurité. Mhm. ñoom ils sont en train d'évoluer d'anticiper sur les choses. donc disons d'ici cinq ans lépp lu def ci sa donnée di nga ok bon nit bu cliquer enregistré sous ci téléphone am bi dinañ la ko wax parce que algorithme la sànq yaa ngi koy wax léegi intelligence artificielle la ay programme yiy jàng la. Mhm. ñu ngi jàng wolof ndànk-ndànk. Mhm. yaa ngi gis. waaw yenn mooy ñu ngi koy kii. di si koy wolof bi dina daj. mais nag Coro euh, gis nañ fi aussi ay application yoo xam ne day enregistrer directement statut. statut yi ah. nga xamante ni moom ngay kii loolu aussi même bu fekkee à côté ñu ngi dox ay jéego pour euh, euh, euh, naka laa ko mën a tuddee sax pour defar aussi ba am na yeneen yu mm-hmm. ñuy créer aussi yoo xam ne day gën a garaawal li nga xam ne moo di ñu xub bi ñuy nemmee moom nit a mel noonu ñun dajale lañ par exemple ñun dajale nañ suñu xaalis pour jënd suñu ay terrain maire bi ne du ci dal day mm-hmm. jël terrain jaay ko ñeneen mm-hmm. ni nit ki di créer application buy sauver vie privée doomu aadama comme hacker bi noonu lay créer beneen bi nga xamante day contrecarrer loolu. Hmm. tu vois c'est comme nit génnee albumam. Hmm. kee ñëw copier album bi di ko jaay ci mbedd mi. Hmm. moo tax sécurité cent pour cent ñun dañ koy wax bu ñuy jàng si cybersécurité dañ naan sécurité cent pour cent existé wu amul. ci àdduna bi. mais mm-hmm. mais mais bu ñuy waxtam ci li nga xam ne ni moom mooy comme euh, ñu dellu soir rek li mm-hmm. war a euh, li yokk waral li nga xam ne ni moom moo di waxtaan bi mm-hmm. ndax fan yi ñu ngi gis que ni ki démb rek euh, benn benn Pawlish Mbaye ñu ngi naan dañu am benn vidéo boo xam ne dañ koo am ci moom mu jógee mu jóge nee na ñu fekk mbuur mbuur def naa ma lañ ko wax nee nañ vidéo boobu mu ngi daw ci whatsapp bu fekkee ni dëgg la su fekkee ni ni vidéo boobu c'est mhm. c'est exact dëgg la am nañ vidéo Pawlish Mbaye muy daw ak yooyu euh, tey jii moom su fekkente ne loolu da koo dal mu bëgg a jóg pour arrêter vidéo bi mu tas ci Sénégal comme nee nañ ñaar ak ñett am nañ mu tas ci Sénégal est-ce que loolu tamit euh, mënu ko mënu ko kooku moom mënu lay sonal man benn question rek la am bu gaaw ah, benn rek ah, tey ñu ci bëri ñu ngi dem ci internet ci whatsapp ak facebook mhm. te xamuñu njariñ bi xamuñu lan lañ fe lan mooy solol lan mooy njariñu internet njëriñu internet internet bari na njariñ paaka ñaari boor la rek xam nga mu mhm. paaka boo ko jëndee teg ko ci sa biir kër mhm. sa doom bi mun na ko jël dagg ci pom may la ko mhm. amal na la njëriñ sa beneen doom mun na ko jël dem agressé ji nit rey ci nit donc problème bi du internet nit ki par exemple man nekkin wi waaw lu ma xam lu bare bare ba quatre vingt pour cent lu ma xam ci internet laa xamee du école laa xamee école dañ maa jàngal rek nan ngay demee internet Mm-hmm. la ma fekk ci biir internet man maa xam soo bëggee yàqu tamit exposé sa bopp te nga fa exposé sa bopp am na solo bu baax Abdoulaye li vraiment information yi ni ñu ko tënkalee denk mm-hmm. na lu nga xamante ni ku ci nekk rek war nga koo gën a mën a xam pour mm-hmm. defaraat sa toogaay ci internet bi ah parce am na ay loi yu bëri yu nga xam ne nag tënk nañu nekk ñu réew mu nga xamante ne lu waaye neex def salfaañi euh, vie privée euh, li ko xam ne parce que gis nañu ay sëy yu bëri yu nga xam ne coro tas nañ ci ci ci yenn information yi am na doom ak yaay yu nga xamante ni réeroo nañu ci yenn information yi dëgg la wala du dëgg nit ku ci nekk amaana boo toogee ca rukk am na loo xam ne yaa ngi koy def te bëggoo mu siiw donc euh, nañuy bàyyi xel yenn yi rek te xam ne ñun ñëpp ñoo far surtout comme ni nga ko waxee rek euh, Salma euh, noonu nga ko waxee daal noonu la amee donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ku ci nekk da ngay def na nekk loo xam ne nii da nga da ngay conscient ba tax na bis bu la ci dara fekkee it nga xam ne lii yow yaa ko jiwoon mhm. donc li nga jiwoon rek ngay ngay ngay ngay récolter mhm. ba tax na daal di leen dénkaat rek ku ci nekk na xool bu baax ak lan la mën a jariñoo biir internet moom mu sóobu ci loolu te bañ a sóobu ci li nga xam ne ni tam euh, ëllëgi bi da lay indil ay problème di a baax a la jaajëfal a baax la rek jox dig daje ni euh, mmh. la dalalee ci plateau bi dañ ci jëlee ay jàngat yu yaatoo yaatu Abdoulaye li suñu confrère ba <laughs> nekk lu am solo ñu lay jaajëfal bu baax